أجابني رب السماء ولدي بالذي سما ومنه قاد لي سما ونماما الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم نحن على ما قال ربنا مولانا من الشاكرين اللهم ارحمنا بالقران الكريم اللهم انفعنا بما سبقت فيه من الايات وذكرنا بما تلقت فيه من المثلات تلاوته عن السيئات إنك مجيب الدعوات تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سيف اللسان aw wuquufin bi xeyri waqf aw idgaamin bi xeyri mudgam aw idhaarin bi xeyri bayaan waktubhu minna ala tamaami wal kamaal wal muhaddabi min kulli alxaan warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al a'daa'i wal qalbi wal lisaan wa hab lana bihi al xayra wa saadata wal bishaarata wal amaan wala taxtim lana bi sharri wa dalalati wa tuxyaan wa nabbihna qabla almanaaya min nawmi alxablati walkasalaan wa aminna min adaabi alqabri wa min suaali munkarin wa nakirin wa min akli diidaan wa bayid wujuuhanaa yowma albaxth wa atiq riqaabanaa min anniiraan wa yammin kitaabanaa wa yassir xisaabanaa wa saqil miisaananaa bilxasanaati wa sabit aqdaamanaa ala siraat wa askinna wasata aljinaan warsuqnaa jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa akrimna bi liqaaika yaa dayyaan allahumma ijcal alquran alazima rabia qulubina wa jalaa axsaanina wa dahaba xumuumina wa qaaidana wasaa'ixana ila jannati naim allahumma ijcalhu aniisana fi lwixsha wa musaaxibana fi lwixda wa misbaaxana fi zulma wa dalilana fi lxayra wa munqidana fi lfitna wa asimna bihi min alzeyqi walahwaai wa kaydi laadaa ya raxmaanu ya raxiim allahuma axtim bi saadati ajalanaa wa xaqiq bi ziyaadati amaalanaa waqrun bilcaafiyati xutubanaa wa aasaalanaa wajcal ilaa raxmatika masiiranaa wa maaalanaa wasbub sijaala afrika ala zunubina wa munna aleyna bi sitri uyubina allahuma ijal taqwaaka saadana wa sixata bika zuxrana wa ictiqaadana wa amin min aljuuci walxawfi bilaadana wa saaira bilaadi almuslimin ya rab alaalamin allahuma ballix sawaaba maa xaranaahu wa nuura maa tarawnaahu li ruuxi sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa li arwaahi aabaa'ihi wa ummahaatihi wa aswaajihi wa durriyaatihi wa asaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain wa ila ruuxi xadimi lmustafa alayhi ridwanullah wa li arwaaxi abaina wa ummahatina wa mashaayixina wa li arwaaxi jamihi lmuslimin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammad xaatimi nabiyin wa imaami lmursalin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin بسم الله الرحمن الرحيم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

bokk jullit yi fi teew yépp bokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla suñu boroom ci sëriñ Tuubaa mi ñu xéewale sant suñu kilifa yu baax yi mu ko jaarale ci ñoom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ni mooy lépp sëñ bi sëñ bi di léppam doo ngi leen di nuyu jottali ab nuyoo ak i cant ak i ngërëm yu bàyyi ko ci sunu kilifa di kilifa murit yépp Seex Muhammadul Muntaqa ma ànd ko nag ak sama bokk yu baax yii fi teew xam naa du ñàkk ñu tudd waaye nañu bañ lim di bañ tudd ko fi nekkul waaye sëñ Sidi Mbàkke mu sëñ Abdou Xaadir mi ngi nii sëñ Ahmadou Rafa mu sëñ Fadil mi ngi nii sëñ Alxaaji Mbàkke mu sëñ Muhammadan mi ngi nii ak sëñ Abdul Asis moom sëñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Baara mi ngi fi ak sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xam moo jiite woon njàngu xasaayit mi mboolem taalibi sëriñ Tuubaa yu mag yi ñëpp góor ak jigéen mag ak ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi di ay cant ak i ngërëm gannaaw bu mu nu joxee ndigal ndigal lu sell lii mënu jox ndigal lu barke lii mënu jox di sant ñi nga xam ñoom lañ ko àndaloon ña ci jiitu ji ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji njiitul sëñ afi bu sa muy waa Muxaddamatul Xidma ak mboolem di aji ci jumaa ji nag nañ ko daan limee rek ilmaan yeeg noddukat yeeg nekk ci daare kaamil nekk ci rawdu bi ñëpp ñu ngi leen di jottali cant sëñ bi ak i ngërëmam di santit mbooloo mi nga xam naka jekk noog ñoom ñoo koy ànd te sëriñ Basiru Mbàkke am sëriñ Fàdilu jiite leen ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abibu ak sëriñ fa Jaxate ak ñi ñu àndal ñëpp ñu waa rabita madaaris alxuraani fii Tuubaa ñu nu ko sëñ bi diggale woon jàpp nañu defee nañ ko noona kon la ca topp mooy nu bokk rekk teewlu nam nam nu ko sante woon nu ñaan ci barkeb alxuraan ji fi jàng ak xasida yi fi jàng li nga xam ne moom la sëriñ Muntaxaa yéene boppam yéene ko njabootu sëñ Tuubaa gi mu ko bokkal yéene ko taalibe yi yéene ko lislaam bépp yéene ko réew mi yéene ko adduna sépp yàlla na ko sëriñ Tuubaa defal yàlla defal ci barkeb sëriñ Tuubaa ci barkeb bayit bi nga xam ne sëriñ Tuubaa ko wax te mu ëmb lépp lim doon ñaan lépp bayit woowu ëmb na ko te moo di rahmaanu hab li jamihi l xalqi rahmata man yuxni an charri man qur'aanahu qaraa turu raxmaan ku ne xam na ni bàyyiwul kenn duñ duñ nekk di ko leeral ndax raxmaanu ak raxiim mën nañ koo ñëpp mën nañ koo tàqale raxmaanu bàyyiwul mel ni bindeef waaye suñ bi firil ko boppam ni xab li jëmihil xalq mayel mboole bindeef mu tegaat baat baatu yërma ni raxmata man yërma di ka nga xam ni képp ku jàng alxuraan ji tax dana la jox jàmm ju la doy sëkk jox la mucc gu la doy sëkk jox la xéewal yu la doy sëkk ba doo soxla aw ay kon nii ko sëñ bi santaane yéene ko bindee fi noonu yàlla na ko suñu borom defee noonu ñëpp ñu fekk mu yàgg na digal ñu di ko jëfe ci barkeb sëriñ Tuubaa barkeb max doomam ba nga xam ni mooy léppam sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu